naa la sëñ bi tur bi Thione Diop. foo dëkk euh, mhm. Dakar Sénégal a ngi tàng de Thione. jër. yow noo gisee affaire. Euh, ban affaire noonu. tàngaay bi fi nekk gën naa dama laa laaj. ñu mhm. ngi ne mu ngi tàng jër. man daal dafa ndax fii dëkku jàmm la. mais da ngay gis ni boo amee philosophe di seetlu àdduna ni muy doxe da xam ne dafa tàng jër moo waral ma ni jër bi. Mhm. Macky wala Sonko ku ko tàngal. Euh, Macky moo ko tàngal. Mhm. nu ko tàngalee. waaw moo ko tàngal ndax xam nga justice. Mhm. dafa war a tëddee ndey ji seex. jaaxaanaay waaw koy defe ku far ak moom di nga lekk di nga naan di wax lu la neex ku farul ak moom doo am jàmm loolu tamit xam nga baaxul ci réew. fois mu génn chaque mu génn nekk ci internet bi. waaw ah. ay vingt mille personnes mm-hmm. la dëgg la xam nga politique de euh, tout side mm-hmm. nga da gis ni Sonko tamit ni muy def nii rek noonu la mën a def. Mm-hmm. nga xamul benn mbokk ci justice senegal ba pare tudd Sonko dëkk Casamance ak histoire waa Casamance ñu bari dañ ko jéem a koñe pour mu bañ a dem ak waxu dëgg gi muy wax xale yi tamit bëgg ko te yàlla tax réew bu waree dem ñaar ñëpp war a respecté amul président amul keneen parce que nit ñi ñoo leen fi teg waaw mais nag jànguma alxuraan mais da gis ci euh, ci ci ci njàngu diine njën saa ñu lay wax genre firaaw na nit koo xam ne da nga demoon dem ba jëkk ni yow dépassé nga nit kooku foo ko defee rek suñu borom da lay wàcce suñu maam Abdoulaye Wade la sénégalais yi euh, gënoon a bëgg mais bi mu demee ba ni troisième mandat dañ ñu ko du fi nit ñi xeex après mu bàyyi dellu ginnaaw. mais troisième mandat pour Macky jotagul trente cinq kay mu a la gars yi di wax. <laughs> non deux mille trente cinq moom yaakaar naa ne ku ne par par loola rek. Mm. waaw comme ne nga ni deux mille soixante cinq sax am nañu koy wax. Mm. mais du demee noonu ndax ñoom moomuñu Sénégal. Mm. Sénégal sénégalais ñoo ko ñoom seen carte ñooy woote hmm. waaw donc ñoom dañoo war a déglu nit ñi li ñu bëgg ñu jàppale nit ñi mais pas di forcer nit ci li li bëggul loolu du dox réew. mais yu bari ñu ne justice bi ngay wax ni Macky dafa nekk bureau di liggéey justice bi ñoom ñooy liggéey ñu nekk foofu. ñooy mm-hmm. liggéey procureur ak ci am justice ministre bi ñoom ñooy liggéey. dëgg la soo kon Macky am pour defar loolu. Ah, xam nga moom mooy président bi mm-hmm. mooy président de tous les Sénégalais. Mm-hmm. président da nga am dafa am euh, lu yàlla def ci ñoom loo xam ne luñ bëgg a xam vingt quatre heures ñu xam ko ci réew bu ne waaw kon procureur yeeg justice yeeg ñëpp ñëpp dañoo ñi jàngul sax daño xam ne dañ farak moom de trop mais jot na nag ñu fàttaliku yàlla daal ndax yàlla moo mën ñëpp même boo nekkee président ngay déglu buñ la waxee tegul ci yoon nga tegu ci yoon mais pas ku la faral nga bàyyi ko fa ku la faralul nga dàq ko loolu lu jëme réew kanama ah. way mais Macky ñu bari ñu man interview naa ñu bari ñu ne mhm. moom mu ngi toog mu ngi liggéey mhm. wax nañ li nga xam ne jot na mhm. vraiment liggéey na vraiment liggéey na waaw def na lim mën quoi def na li man def nay tali am nay autorail yu daw électrique yooyu yëpp daal mais tamit dafa am lu ëpp loolu gis nga grand ay nit bu ñu nekkee dafa am population Sénégal ay xale lañu Afrique bi yëpp ay ndaw amuñu xam-xam ñu ci bari waaye tamit borom xam-xam yaa ngi fi ñu utiliser leen xam nga jàppale ndaw yi mais doo ñëw rek yow ni ay taali ak ay affaires yoo xamante ne rek pour gis la nii rek mais futur Afrique lañ war a xalaat mm. ndaw yi ñu jàppale def ci seen bopp yi xam-xam boo xam ne dina dimbali Afrique waaw. Oh, mm-hmm. mu def noonu Euh, non xam nga sànq euh, dañ doon waxtaan <coughs> euh, ma gis ni maanaam Sonko mu ngi def ni mu mën a def nii la mën a xeexee ndax yorul armée yorul xaalis boo xam ni mën na jënd ay juge ak ay ni mu mën a def wax ak population bi population bi ñoo koy jàppale fi mu ne ñooy wax ñoo koy xeexal ñooy def lépp te nit ñi nag boo gisee ñu def lool because nit ñi amatuñu amuñu amuñu amuñu fu ñu wéeru donc Sonko nii la mën a politique wax li ko metti ba pare da ngay gis ni dañ accusation yi ñu ko teg nga gis kilifa yi ne ci nguur gi ci armée beeg ci lépp am ci ñoo xam ne dañoo xamal nit ñi ni kii liñu ko tuuma bi dañ tuuma la rek xam nga mais ñee tamit duñ àtte yoon bëgg ni rek Sonko Sonko Sonko Sonko. mais ñu ne dafa xam nga man nag yàlla dafa dogal dama man loolu sonaluma ndax am naa sens su dem ba Amérique gis seen président yeeg yeneen président ni ñuy waxee yoo xam nga ni Trump mu gën a garaaw Sonko taxaw na fi wax yu garaaw ci Amérique kenn waxul xam nga donc sonk ni muy waxee waxul waxul benn sénégalais lu ñaaw Macky Sall la amal affaire moom lay politigal bu dee ci wàllu politique nag li muy def lépp ak li muy wax kooku la ko séqal boo farekkee nag da ngay defe ni da koy xas daf koy wax lu ñaaw mais li muy wax yëpp ci côté politique la ko teg mais yow wax nga fi ci sànq ne. Mhm. xale yi. Mhm. am nañ ci bëri ñoo xam ne jànguñ seen xam-xam def naa màcc wala. yow mhm. wuñ bu baax wala ay jeunes lañ. ba tey waaw am su demee noonu. ñooñu seen yeewute des na ak yeewute Amérique. na lu dox Amérique. doxul Afrique parce que Amérique. su président Donald Trump jógee wax dara tamit ñëpp xam nañ ne ku ci génn def dara tamit. loi day tegu sa kaw. su la Donald Trump waxee nga dugg taal place nga taal fa. yow la loi di daal sa Afrique aussi. Afrique aussi mais boo gisee comme li soxna si wax sànq xam nga ñàkk pauvreté yàlla nañ ci yàlla musal ndax am na ñuy sàcc tey di ci osan yeeg yooyu dalay lay wóor ni du seen coobare bëgguñu def loolu ñu ci bari tamit faraluñu Sonko faraluñu Macky ñu ci bari à politique lañ faraluñu kenn mais xam nga boo xëyee amoo loo lekk amoo loo naan sa maam dafa pauvre sa pap pauvre ngeen di fay lu yaas di jënd courant war a dund wara tak soxna ak pression aduna yoyu mais amna ci ño xam dañuy dem satch même aux États-Unis legui ci yeen saa yeen yëngu yu am wala ni ñuy def suñu mbokk ñu li di len toroxal nga gis nit ñi mer dem ci gëna mag màgg Auchan toj ko satch fa parce que amuñu mais gor gu ne gor nga mais bo toge rek mu wóor ne yow di nga lek di nga naan sa xel nga dal lenen ngay wax mais do talay dajji fenn xam nga deug ngay wax ak luy jëmale réew mi kanam mais pas di waaw waaw Euh, bu ma doon wax ak président Macky laa koy wax sax jox ko cëram mooy président de tous les sénégalais waaw dañ ko fee teg pour mu liggéeyal sénégalais yi sénégalais yi jox ko pouvoiru àdduna ak Sénégal moom tamit mu xool luy jëmale Sénégal kanam bañ a jël rek li géwél yi naan diwa ki ñoñam moom ak ki mbokkam rek ba nga da xool aide yi ñu dimbalee Afrique fii nga xam ne tant que ñu ngi jëlee aide duñ dem fenn jëmalewuñ fenn da nga koy lekk mu jeex am na lu gën a intéressé loolu tey da nga gis fi Sénégal boo àndul ak président ak yenn réew yi ci Afrique ceeb bi ñuy joxe ak diwlin yeeg yooyu doo ci ñam mais boo ànd ak ñoom dañu lay indil ceeb bi ba sa buntu kër di kii te yooyu jëmalewul réew kanam mu xool daal liy jëmale réew senegal li ko fi dese mu xool liy jëmale Sénégal kanam mu def ko te bañ a fayantoo fayantoo baaxul bu jeexalee mu dem ci jàmm keneen ñëw noonu laa ko gisee Sénégal lu fubal kese ak bëre nit ñi dañoo wara lek naan sant yalla amna na benn mo moo xam si gannaaw de mu ne ma moom liko naxare rek moy mbër yi muy recevoir ci palais bi. waaw di leen jox ay lii comme fi amut ñeneen ñu mëna recevoir par exemple mbër kese xale yaa ngi soxla jang soxla li soxla le waaw loolu noo gisee loolu. kon niko ñepp gisé rek ndax tamit am rew da ngay wara xalaat chaque fois likoy koy kanam ta ndaw dañoo bok ci lo xam ni li anglais nan today but tomorrow. ngay xalaat ndaw yi suba ëllëg nan nga leen mën a jàppalee Sénégal jëm kanam mais doo ci jël ay mbër di leen jox ay millions di yàq suñ xaalis loolu tamit man mi ku bëgg làmb laa mais am na lu gën a intéressé loolu jël ay milion woo ay mbër yooyu noonu loolu taxul troisième manda am de deux lay yam deux lay yam loolu la Sénégalais yi